Sénégal nuyu naa leen seen surga Guy Marius mooy wax ak yéen di leen di gërëm di leen di sant ginnaaw bi ngeen dajalee seen gërëm ak ñaar dërëm ba mu toll ci quatorze millions ci suñuy koppar ginnaaw bi ngeen waxee jot na Guy saña Sagna am oto quatorze millions yooyu ngeen dajale jëm nañ si fukki millions ak xaaj jënd si benn Toyota rav frais yi nga xam ne moo ànd ak oto yi toll ci un million daanaka oto bi mën na dikk ci onze million cinq cent mbokk yi gën ngeen maa sas gën ngeen maa ñaax waruwaay bi dina yombal dem ak dikk bi fépp ci Sénégal ngir nekk ci wetu askan bi ñuy noot te bëgg jot boppam bëgg sàmm ak ak yelleefam tey lañu fas yéene gën a xeex nooteel ci Afrique ak ci Sénégal tey la fas yéene gën a taxaw seen wet ngir dàkkal ronguñu baadoola di siin cere bi jot na jot na Sénégal ak Afrique moom seen bopp jot na baadoola ak néew di doole moom seen bopp askan bi ci kanam jërë ngeen